sëriñ Seexu Saaxo sëriñ daam Ndiaye sëriñ Mor Ndiaye sëriñ Cheikh Ndoy ak sëriñ Mbay Fall jàpp leen turu ñi nga xam ne ñooy dëbbee Zikrullah bi. fédération ouest maanaam bi féete soow moom nag moo tàmbali liggéey bi ci taxawaayu sëriñ Seexu Saaxo. kuréel bi nga gis ci biir mooy kuréel fédération sawu jant yi ahlu Zikrullah yi nga xam dañoo féete sawu jant deme ni ñu nekk Ndakaaru ñu nekk Mbuur ñu nekk Kees ñu nekk Ndar. ñoom ñëpp daje nañu bi ñu dajee itam juróom fukki personnes yi nga xam ne ñoo war a taxaw ci kanam seen jóg tur yàlla wi dugg si na ñu ngi toog. ginnaaw bi nag ñeenti kuréel yu dëbbee zikrulaa bi dinañ toftalante ci waxtu woo xamee nag takk nañ ko muy lu leer zikrulaa bi nag du am dogantal lu dul ci waxtu julli. ahlu zikrulaay bi ciy topp mooy seexi Serigne Fall yi sëñ Mor Ndiaye moo ko jiite bu ci noppi bunti kër maam Serigne yi la topp ci dooma sëñ Daam Ndiaye mu sëñ Sakur moom moo ko jiite bu noppee itam kuréel ba ca topp sëñ Cheikh Ndoy moo ko jiite bu noppee kuréel ba ca mujj sëñ Mbay Fall moo ko jiite moom waa kër sëñ Moussa Fall sëñ sa sëñ Cheikh Ndoy moo boot waa kër sëñ moo taal waa kër sëñ Cheikh Mboor ak ñu mu ko war a àndal ndax dañ leen séddale. kuréel yi taxawee Sam Fall bi fii ci Daarul Minam résidence Serigne Bassirou Mbacké ñoo ngi jëfee ak noonu loo xam ne lu sax la ci yoonu murit rawatina ci Baye Fall yi. te la ko defee ci kër sëñ Modou Moussa Fall kër sëñ Mor Talla kër sëñ Awa Jaxate kër sëñ Abdou Sakkoor kër sëñ Modou Mbenda kër sëñ Mbacke Fall kër maam Saliou Fall moom maam Serigne Fall ak kër maam Saliou Fall rakki maam Serigne Fall moom ñoom ñoo ñoo tënk ñeenti kuréel yi nga xam ne ñoom bu ñu noppee rek ñoom ñoo ciy dellu. ñoo co ñoo cooy topp toftan yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi